dikkati naa xeebub xal mu lakk sa daay tribune yéen a kaay ne ma sëriñ Mbay Caam looloo ko daal mi ngi ci biir ndox mi waaye dafa mel ni ku ca faf lab nag yéen a dee média bi daal di may xamal ne moom sëriñ Mbay Caam jafe-jafe dëgg la am ak seen woo waaye tam askan wi amuk jafe-jafe ak seen woo yore nu ndox mi nañ ko wax te dee baata dund tribune yéen a kaay ne ma baaxul seen oo lu dul ay scandale def ko ci réew mi fii ci Ndakaaru bari na ci quartier yoo xam ne boo fa toxantoo ndox amu fa te ñàkk nañ ko yàgg na facture yi cher ba jéggi dayoo yéen a kaayub média bi ne ma kañ la facture gëj a doon junni rax nag sax ndax ndox ban lay jox fax baaxul yenn saay mu xeeñi nefere Mignane Diouf ci yéene kaay bi ne seen o ab fiasco politique la waaye tam diplomatique dafa mel ni nag dañoo takk buum ci suñuy baat di ñu diri lu leen neex def te dara du leen ca fekk yéene kaay bi ma coowal ndox mi jeexul ndax ñi tey liggéey ca kaw gi daal dinañuy dakkal liggéey bi l'évidence yéene kaay bi ne ma mbaadu digganteeg Idrissa Seck ak Macky Sall dafa dakk en tout cas neexatul diggante ideeg Macky dafa mel ni ca rajo sotti suuf yéene kaay bi ne ma Idrissa Seck ak partem bii di réew mi day ñi ngi dund jafe-jafe ci biir gouvernement gi Macky nag dafa mel ni moom moo ca sopp Idrissa Seck waaye nag Idrissa Seck yéen kaay bi ne ma ñi ngi jëm ci élection muy locale di législative waaye tam présidentielle war a it andiwaat premier ministre waxtu woowu jafe-jafe wérgu yaram tongal ko moom Idrissa Seck lii ab tàggoom ak Macky Sall lay wane am déet en tout cas Idrissa Seck réer na mër l'évidence yéen kaay moo ko xamle Sud Quotidien daal di may xamal ne élection locale yi day daal dina jub si moom waaye waa gratte gis nañ tey ndax jàpp nañ ni nag des policiers fa la jafe-jafe tàmbalee am na yenn ci coalition yoo xam ne maîtriser wuñ mbir mi ñeneen ña nag dafa mel ni autorité administrative yi ñoo leen naj jaay leen doole wan leen rigueur goo xam ni mar day taali yenn cassation yi préfet yi bëgg waa grade ak ne ngelaw waay ëttuwaatekaay bu kawe yi ni ci dogal waaye nag en toute indépendance lu ci mënti am xëccoo gi nga xam ne moo am diggante préfet yi ak coalition yi mënta yàq benn yoon tëgginuk élection locale yi 23 janvier 2022 l'indépendant yéene kaay ne boobaa mairie bu ndakaaru la ca Pape Diop di xëccu laataa ñu caa àgg Pape Diop moom ca bu ndakaaru woon nice terewul xam le ni buñ ko joxaatee ndakaaru dana ko yeesal ba mu mel ni panaal Pape Diop leeral ci ne man du ma jege ñaaleeg Macky Sall ab opposant la opposant boo xam ne duma saaga duma ma xasta du ma wax lu ñaaw du ma bokk ci marche man daal jàmm ca laay dox man Pape Diop Pape Diop dal ci kaw Macky sàll ci premier ministre bu mu fi dindi woon bëgg ko andiwaat nee na ko na doon ku neutre yënguwul ci wàllu politique source aané yi Khalifa Babacar Sall ak waa yeewi wi waxtu woowu nee ñu ña ngay wëri koppar ngir seenu campagne vox populi ne ma waa yeewi askan wi gannaaw loolu ña ne am boo xam ni sàcc élection yi ña ngi ca bëgg a soobu moo tax it Ousmane Sonko ki gaayam ña ngay woo ndaw yi ngir ñu sécuriser wot bi Dakar Times ne waa azutik kay la ñu bëgg ñoom ci boppam moom moo di nag ñu sayel fichier électoral bi ba faaw booba tribune yéen kaay di ma xamal ñaar nee na ma rassemblement politique ba amoon ca ginnaaw raay noor police ba nag da ko baa dakkal tere Pam Njambe seen maire sortant ba mu politique te Sinja Bougane Gueye Dany ma nga fa woon gannaaw jàppam nga ja Sédhiou moom Bougane Gueye Dany caxat-caxatee yóbbu gendarmerie tribune yéen kaay ne ma moom jiital coalition gëm sa bopp demoon na Sinja foofee Papa Moussa Thior moo fay doon seen candidat Bougane Gueye Dany profito ca daal di xamle ni caxat-caxatee ga ñu caxat-caxatee suufuk si njëga la bëgg mu dak te wóolu na ca Papa Moussa Thior booba réew mi quotidien ma ngi may xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr de daal dinay taxañ Guy Marius Sagna daal di affecté ji Kédougou Vox Populi daal di may xamal ne foofee la nag la maire bu Ndakaar doore amee sens ndax Abdoulaye Diouf Sarr ma koy wut daal ma koy wutit ne bu ma faloo dinaa la andiwaat Ndakaaru tribune yéen kaay ne ma Mame Mbaye dal na ci kaw ñoom ñaar ñëpp tasaaroo di Barthélemy Diaz Mame Mbaye Niang lii may def kenn santuma ko maa bëgg a sama réew doonub candidat Mame Mbaye Niang defar naa sama programme ba nuppi pour Ndakaaru te Abdoulaye Diouf Sarr amul programme moo ñeneen ñeeyam amul dara loo xam ne mën na ca yoree Ndakaaru mambay Mbaye na ña may xëccool Dakar sama xel dal na ci ndax bu nekkee ña nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall liggéeyuñ fi lenn xanaa kay wéeru ci ginnaaw président wéeru it ay réalisation ngir bëgg a yore Ndakaaru duñu ko nangu leneen la mooy waa yeewi askan wi Mame Mbaye ñoom seen gët na dong lañ ko teg mooy nërmeelu président Macky Sall te duñ ko gis réew mi quotidien ma ca Saint-Louis foofee day mari taw ñaan ma ngi fay doxal waaye it ma ngay ñaxtu jafe-jafe yi njàng mu kawe mi am Sud Quotidien ne ma ñoom ñooñee ñi ngi war soobu sóobu ci gréew nag ñoom njàng mu kawe mi Dakar Times ne ma boobee réewum Sénégal ñi ngi wax ni yoru pétrole moo fi nar a am xel di dal 24 heures yéene kaay ne ma yor goo xam ne waa ànd sàmm ji koy nee ñu góor jigéen ak lépp lu mu làngoo dootu fi daagooti ab loi la ñu bëgg ci assemblée nationale bu koy criminaliser booba Sénégal lépp ay défi la 24 heures yéene kaay ma bu nu wéeru ci CEDEAO de ndax foofee aluuti nag ña mu àndal yekk nañ leen musiba ci ñàkkub démocratie ak bonne gouvernance laas yéene kaay ne ma moo ne day Sénégal am na croissance su 5 pour cent libération yéene kaay ne ma Abdoulaye Daouda Diallo it xam na ne suñuy bor ma ngay wàññeeku l'indépendant ne bu ñu ko amee day réew maa ngi bëx-bëxi président Macky Sall war a soppi gouvernement andiwaat fi premier ministre waxtu woowu réew mi laa la ma ngay jëx-jëxi grève yaa ngi mel ni tulleeg maale njëgug ñam yi cher na lool askan wi dundatuñu dund gu doy te sell seen o niki noonu it courant bi fate l'indépendant ne ma crise économique am ci réew mi covid 19 ñëw nag faf daal di ñuy doggali booba vox populaire di ma xamal ne Ramaphosa bi nga xam ni moo nekkoon ganuk président Macky Sall fan yee gannaaw delloom Afrique du Sud dañu koo testé mu am coronavirus booba le soleil yéene kaay ne ma président Macky Sall day ma ngay xam le ni Afrique am cëgal guyam ci paj mi lu ñu war a gaawtu la le quotidien le quotidien ne CEDEAO day ma ngay sàkku ca Mali ñu tëggi élection weeru février gi ndax nee na xaar wi yàgg na fii ci di ma xamal ne ma Mamadou Diop Decroix day ma ngay dal suñu kaw mi ngi xam ne ni soppi nañu jikko soppi doxalin Sénégal léegi askan bi dañoo violent yéen a kaayib dee média bi ne ma déet neexut a weddi de xoolal man la am rek bërki démboo njaay ci terrain bu Grand Yoff ab vigile la ñu fa fekk mu daal di faatu kanam nga ñu daal di koy caxat-caxatee ba maar day taali ay jege ñaaleem nag xam le ni kii buñ ko seetee ba ca biir dañoo faat ba kanam fii la réew mi toll leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm lu bees tàq am na émission bu bees biir Sénégal set ban émission ñu ne yàllaay kese bu ñu ne yàllaay kese xel yépp daj borom sirru sirri salaatul fatihi sirru sirri fatiha sirru sirri alquran moom Serigne Moustapha Dramé borom këchfu moom mi nga xam ni bu la ni jàkk wax la sa soxla émission bii nag dina am ajuma bu jot bu 20 jotee en direct sur Sénégal set ñu nar si waxtaanee actualité waxtaanee mbirum ñaan yàlla mbirum faj jàngoro ak secret yi làqu ci biir alquran maanaam daal moom Serigne Moustapha Dramé du bàyyi dara mu jàll. ciy yàllaay kese ciy borom yàllaay kese nee na ma duma listixaar dama la naan jàkk ciy yàllaay kese. cey boroom yàllaay kese nee na ma duma xaar dama la naan jàkk wax la li nekk ci yow